acca jërë ngeen jëf euh, yéen sunu mbokk nag bu 221 people ñoo ngi leen di nuyu di leen di jaajëfal bu baax di ci dellowaat rek kenn ku nekk euh, sa wàccuwaay amaat lii di kontaan ak mbégte bu baax nag comme ni ma ko faral def saa su nekk kilifa yi wala sëriñ boo xam ni dama laa dal ci biir site bi rek saa su nekk damay bëgg ñuy waxtaan ci xam-xam di bu baax a baax ba képp koo xam ne topp nañu rek xol dina sedd guy aja nee naa leen ki may dalaat tey kilifa la doonatu koo xam ne dañ koy présenté ti ndax su jaaree rek xam-xam ba sa xol dina sedd guy kooku mooy sëriñ Modou Ndiaye mu sëriñ Saliou tey nag dinañ waxtaan ci xam-xam yaatal ci diggante ñaan ak paj bi nga xam ne nekk mu ngi ciy def résultat ñu bëri di koy rafetlu waaye xew-xewu jamono di actualité ni mu koy defee def dinañ ci yaatal bu baax a baax kilifa gi damay bàyyi nga nuyoog mbokk askan bi bisimilah. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah Cheikh ñu ngi lay ziare bu baax. di ziare mbooleem kuy seetaan sit bii di 221 people nga xam ne. yàlla dogal na samay xarit lan te seen lépp ci yoon lañ koy teg. Mhm. macha allah ñoo ngi ñaan ki ñëpp dem abonné ji. Mhm. Euh, ñoo ngi leen di siyaar baax di ñaan suñu kàddu fekk leen ci jàmm. tarkalla incha allah jërëjëf sëriñ Modou Ndiaye mu sëriñ Saliou ñu ngi lay fay bu baax di lay kontaane ginnaaw seen yooyu set yooyu tànd ak dal ah tarkalla sa bulo de moom kenn mënu ci wax dara macha allah sañse nga xam naa gars yi du ma ne yaa leen gën a sañse dinañ ma wax dara waaye kii nag ah sañse na de bii moom macha allah tawféex acca euh, tey nag dinañ waxtaan ci xam-xam yaatal ci diggante ñaan ak paj nga xam ne yaa ngi ciy def résultat ñu bëri di koy seddee ci biir réew mi ak réew waaye suñ fa jógee dinañ waxtaan ci xew jamono comme ni ñu koy defee saa su nekk gars yi ko bëgg a xam lamb ji ni ki le premier diggante Modou loo ak kii di Boy ñaa kii daan topp leen ko ndax dina leen wax kii daan waaye dina leen wax ak na muy daane kon loolu dinañ ci waxtaan bu baax a baax waaye ki nga xam ne suñu borom namm na mu doon cinquième président 2024 dina ko leeral fii tey dut ci baaraam li nga xam ne lu jafe la pour maam ko ci sëriñ si euh, ndax élection dina am 25 février 2024 dina am wala du am sëriñ bi nee na tey moo xala lu leer nañ loo xam ne kenn du ko dajje cheikh bi dinaa ci kontaan atia ñu del siwaat seet bu am solo bi nga xam moom yaakaar naa a la la waxoon waaw moo ci nekk ak ak làmbatu da koo defut lu wér làmbatu dafa da koo defut seet daal gu wér ku ko mm-hmm, bëgg mm-hmm. contactel sëñ Modou Ndiaye nga jox ko sa tur ah. sa tur waajuru jigéen ak sa date de licence tarkalla gi ñaa ci rasulillahi mm-hmm. problème boo mën a am mën nañ laa teg ci yoon xam ne boo jaaree saabaram dana ko saafara ci kàttanu yàlla lu wér moo xam ci ci ci ci ñaan boo ko aajowoo ca mm-hmm. Mm-hmm. boo aajowoo sarax waaw kese waaw allahu akbar bu ñaan lu seet nag seex da koy xam mm-hmm. lu wér ak làmbatu defu ko déedéet faaw nga xam seet xam sarax waaw mën ñaan dëgg naa dëgg de sëriñ bi boo compli boo complété wul rek. waaw nga am résultat du yomb. waaw li ma la bëgg a xamal nag ci wàllu seet mooy. waaw seet ci baax na da ngay lépp dama ciy liggéey waaye nu juum. waaw ab sëriñ wuru wuru ca tëdd di nelaw. waaw waaw ndax lu bari. waaw lépp ci chiffre la ko teg. Mhm. sunu maam Adama moom la divisé. waaw. allah moom la divisé 15. Mhm. Hawa. waaw. la divisé 15. 45 mhm. Adama. ci lañ ko génnee tarkalla bépp doomu aadama boo gis waaw mbiram mi ngi dox ci kalkin lu wër nga wax adat mënu mhm. koo romb nu joom ci adat lay dox tarkalla dégg naa fi tamit ab sëriñ bu taxaw daat ne waaw eh, tabian naari yu hawa yu ñaari tabian yi séddale ko ñaari tabian yi ci góor yi tabian ba pare dolli ci daat ne mhm. képp ku la wax lu dul lii lam la wax wérut te ba ñaan di ñaan ba tey mhm. ilmu ñu joom joom ba tey waaw loolu ngi doog a dugg su nopp bu ah. fekkee ne nag ak wax ngir bëgg ko ko coow moo ko ci dugal mi ngi def mm-hmm. erreur xanaa xamoo seex bari ñoo xam ne seen mbir a ngi dox waaw ñu dem na dañuy seetlu ji waaw ngir ñaanlu ji dem waaw seen yëpp tax taxaw ñu ci bari ñi ne ñiy woto ay sëriñ ñoo ko teg dañuy dugg ci luñ warta dugg ndax xam nga bu fekkee da nga séddale tabian yi naan góor a moom a a moom lii rek yaa ngi def ba ah. fekkee ne ci loolu la sukkandiku moom ma ko wax waxut dëgg sëriñam jàngal loola waxut dëgg kon de defee nga ko moom mm-hmm. waxut dëgg mm-hmm. sëriñam ba ko jàngal waxut dëgg moom tax dama ko jële bu fekkee ne sëriñ ko jàngal loolu mm-hmm. ba ko jàngal na ma woo ñëw ma dindil ko loolu xamal ko ne amut te maa ngi giñ ci sëñ Tuubaa mboolem ñu ko a dëgg di jaxase nit ñi fi ne problème yi doomi aadama yi am yu bari tarkal ñii di woote te waaye lu ma la ci wax man bu yeboo nga fayoo ko borom il nga jóom da xam date de doo mën a xam saraxam xam biddiwam xam xam buróojam kaw kab xam couleur am xam saraxam xam bis ba xam ba boo ko xamul mënoo koo <laughs> ba mi urof ca dem lu ma la wax ba fay ko baru ci wàllu seet hmm. insha allahu taala <laughs> kilifa ngeen jàkkaar lool te du waxee rek ngeen xam ne xam-xam lay waxee li tax mu neex ma wax nga turi sarax léegi sarax lan la mën a fanq ak lan la a ñoddil nit ki comme tawfeex mu gis ci njëriñ seex nit nit ay mbiram a ngi naan këkk taxaw waaw ndax xam naa say sarax moom waaw bala la a nit a ngi a def waaw ne am na nature mhm. am na lu ko sunu borom moo ñaale man ngay jóg di di jënt ji mbir mu dëgër lool te fekk mënoon naa yomb maanaam oto ni muy dawee ba mu yàgg ni mu am problème paan nga dépanné ko. waaw nit a ko raw. ndax seex doom aadama ba mu juddoo. Mhm. rawatina nag ñi naan gëmuñu sëriñ. waaw ñu ngi ci erreur. ba nga ne mhm. cëpp ci adduna. Mhm. la gàllaaj lañ la njëkk defal muy toqantal. moo lay xamal ne la fi nga ñëw fu dansé la. ñaana la fi mën a génnee. ba nga ne cëpp rek dañoo toqantal. waaw ngir nga mucc nga xam ne fi nga ñëw dansé na. beneen bi ci tegee. waaw waaw téere jàllale loxo ndeyjoor. lu wér wax. boobu tànku càmmoñ jaas waaw waaw <laughs> falaxe naas yi kursu yi laxat jaagum kenn ko ne xam nañ ko ci gone guy doog a ñëw xam nga la nga ne cëpp yow nga ne cëpp ñu toqental la bind ay muslaay takkala ko moo lay xamal ne fi nga jëm dansé na nit bala fee nekk jariñu <laughs> da fonk ñaan ak sarax lu wér su sutantee bu ne dañ koo jal dañ koo jal de lii man maa la ko boo ànd ak sa morom muy ñaan lu di sangatu barke sëriñ Tuubaa nga naan gëwma sëriñ nangam sangam dana dem bala waaw ñaan lu mënul amut ñi yaakaar adduna ak alaxira duñ fendi ku koy sikki sàkk nag yaa ci erreur. Ah. waaye wa waaye li liy tax nit ki. waaw ngërëm mën a dox sarax ba day leer. xam nga bu say bu say tànk di metti ngay dem di faj bopp doo am résultat. lu wér nga wax da ngay sonn rek. boo waree saraxe boo waree saraxe ndox wala nga war a saraxe sondel wala nga war a saraxe ceeb ñu rendi loola. am na ñoo xam ne gars yi ñoo leen paralysé loola nga rendi. te waroo rendi erreur nga moo moo lay dal. saraxu aajo nag dafa am. nga am soxla ñu xool ko ne la sarax ba lii la ak sarax bi nga xam ne moo conditionné nit ki muy tabian ah. uh-huh. ak saraxu biddiw ak saraxu burju dafa am ñi la couleur amee uh-huh. couleur ba nga xam ne moom ngay sol ba ci jaaro yi couleur ba nga war a per bi nga xam ne moom nga war a am yooyu yëpp dafa am lu moo tax xam-xam du lu ñuy làmbatu sëñ boo bëggee gis ko am xam-xam mhm. internet bi am na gone yu ci nekk yu ma rafetlu seen xam-xam ndax xam-xam la wax te nit mënu koo dindi waaye am na ci ñooñ maa ngi leen dégg ñuy teraateer ñooñ dong la nit ñi di topp naan dama leen dugalal sama alal di leen woo mu ne ma leen jot boo xamut da ngay ñi xam def. maanaam bëgg tedd nag. Mm-hmm. te doo sonn. Ah. te moom ku ko def ci erreur ngay dëkk. boo bëggee tedd te doo sonn dem jàngi. boo xamee boo ñëwee da am résultat loolu mooy mooy tax nga mën am ci ñaan caaxaan dara waaye bëgg koo dóor tey suba doo ko dóor nan bàyyi seen xam-xam mën naa ñàkk man nag képp lépp bépp xam-xam bu ma toog wax ko mhm. bu sëriñ ñëw ma leeral ko ci sax lu ma côté ndax am na ci mhm. mhm. a loolu nag moom damaa bëgg mu jeex moom dama ci jël ay matuwaay ànd koog waa 229 mi loolu dama ko bëgg a dindi wala ko ko ci def ma dénoncé la moom kontaan naa ci say kàddu mbax euh, tax na euh, xam ne dañ koy def mu di 221 people dañ koy segg dóoree dóor wala ngay bloqué nit fii moom mën ngaa wëre feneen waaye du jaar fii ci xam-xam bi am solo kooku mooy Serigne Modou Ndiaye mu Serigne Saliou xam-xam daal moo wër te moo leer ñëwal ma ci nob am solo bi nga xam ne yaa ngi koy def gars yi dañuy nobantu waaye ku ñëw ci yow nga jàngal ko nob wër seex nob bari lañ koy wax te xamuñ lu luy nob waaw waaw loolu bis bu ma ma ma wax ci waxati ci nopp moom sëñ bi ki ki nga jur jëndoo ko. waaw xëy bëgg koo jàpp ci noonu. Mm-hmm. xamoo ko ndaayam boote. wallaahi azim ko. am na ci ñoo xam ne fi bu ñu bu ñu amul gàllaaj sax mënoo leen a jàpp. waaw waaw. yàllaa ko def a jàpp xam nga li tax. Mm-hmm. moo am na ci ñoo xam ne lañ àndal. Ah. boo amul xam a jàpp ci ah, dara moo tax da gis gars yi ubbi mim di dugal di sol loolu ah, jàpput benn natir la jàpput loolu man maa la koy wax tey sa ginaar gi mu yër sa kër gi mu nefi nga di ko xont boo ko bëggee jàpp da koy dàq naxtaan ko ba jot day dàqante ak a tëb ne da nga koy jàpp di ubbi mim di ko ci sol kamatara jàpput loolu nopp gu wér daal ku ko bëgg boo ma wooyee max man man man ci noo ko bëggee mu xawaatim mën naa cee dagg nopp 24 heures bu ma neexee ci àlluwee xanjar laa koy teg bu ma neexee dagg bu ma neexee dagg xaatim bi jox la def ca tapp madlo ba bu ma neexee du la jox dara damay xool tapp taalib madlo ba hmm. ca kay sàkku kamay sàkku ca tapp moom laa ko def toog si ko lim ba ko ci kar xam giddiwam ban heure lay jóg la may hmm. liggéey ma xam ko hmm. loola bu boobaa du ci noob lu échec beneen bi ci dolli ko am na ci yoo xam ne du jar sax si weewu mbaam su ma ko amee man ak seggitu lem yi ñu ñuy fatte li yi ne akkit yi ne ci lem waaw su ma liggéey la may liggéey ba sol ko ci biir kaa nekk poobar laa koy booleel fa ma koy suul maa ko samay code la juuni juuni la nopp gaa yi mënuñu ko dañuy wax jàpp doomu aadama ci boppam moo yombut a xam-xam moo koy def mais kamatra yi noobut <laughs> waaye nag sama nopp day leer waaw bismillah sama ndaw seeg sama yi man du ma du ma nopp ci yoon waaw ndax liggéey bu ne daa am àq waaw sëy buy rëng rëng yi bi ñu bëgg laa dàq waaw baa ñu bëgg a xàjj la ñu ñu war a ànd <laughs> mhm. ca loola laay dox man waaye ñëw jàppal ma ki ngir sa intérêt wala ndaw si nangam sanga mu toppala nga li nga jam jàppe ko di ko fooyee daan yoo ci am rek yi ma ci am moo ko gën a rëy bala maa kenn woo ci nopp moom na nga xool li nga li nga may woowee lu doon moom waaye lu ma la ci wax ba nga tëdd nelaw jërëjëf li neex na cheikh bi ba nga xamee ak eh, la nga xam ne dina tourné ci sa kaw dina dal ci sa kaw jërëjëf kon loolu am na solo atia damaa ñëw ci li eh, bëgg ñëw ci wàllum papier mu di kayit eh, retours yi confirmation yi ñu ngi ciy jot ci laa bëgg ñu del siwaat bu baax a baax ndax si na la ci xam-xam bu yaatu macha allah waaw cheikh la ci leeraloon ci émission bi passé lu ma fàng ci xam nga bu ñemee taxawaat boo ñemee taxawaat fii di insister ci wàllu papier toog nañ fii nga laaj ma ci ma wax ci mhm. li ma ci woo ni suuf la toll ma bu fekkee ne téeméeri nit woo nañ ma ci affaire affaire papier mhm. juróom ñeent fukk yi ak juróom waaw am na ci ñoo xam ne sax gisuñ ma ci site bi damaa jëflante ak ñoom ñu boolewaat ma ak ñeneen te maa ngi giñ ci rasulillahi amut kum am na ci ñoo xam ne sax du ma jox leen sarax dong laa leen digtal seen site bi di ko wax waaye ku mu intéressé jëlal sama numéro nga woo ma danaa la teg danaa la seetal la nga war a def ci wàllu papier saa borom dana jàppandal lépp moom miy sottal aji màgg ji du ma ci dara nag waaye lépp lu ma leen mën naa ci dara gëstu mhm. naa ci lu wér suñu borom xamal na ma ko jaam laa buy ñaan suñu borom buy wàkkir lu fa yàlla waaye nag mhm. alxuraan ak xawaatim waaw yil joom mhm. ak wàllu kurus toog ñaan yàlla sunguf ak reen ci lu tegee ci yoon dama ciy gëstu jàng ci ba xam ba dañ ak riir lu ma la jox déewoo koy dindi ci kàttanu yàlla lu ma xool ba ne la ci mën naa ci dara booy ba nga tëdd nelaw boo feeroon ay millions ci àll bi boo ñëwee su ci mënee dara bu yow nga xam ne sa fa li ma ci lijjanti bari na ci giri ngarte bi kenn xamut ni mu bi laa illa si laa ilaha illa huwa ñoo fi defandoo boo ma woo bu mën a doon nag nga ne bëgg dem biti pré amoo kayit mhm. wala ngay lijjanti fii mu dëgër mhm. bu ma la seetalee wax la sarax yi bu mhm. génnee ci nam war a génne boo demee saabaram defal la ci ndam ci kàttanu yàlla jërëjëf Cheikh bi acca kon am na solo dañuy dox ba léegi wéyal jàll ci beneen ponk dama ñëw ci ñi nga xam ne bëgg nañ borom kër gars nag ku ci gaaw balaa 2024 bi mën nga am borom kër soo jëflanteeg sëriñ Modou Ndiaye ndax xam na sax loo xam si ni borom dénk ko ci wàllum bëgg borom kër waaw wàllu borom kër it ak ñu bëgg soxna it bu leen fàtte daanaka du waaw ndax xam nga loo gis daa lu ko waral mhm. am na ci ñoo xam ne fii ne ñi ngi topp di dijjanti biir mu dëgër la leen gàllankoor lañ war a def ci wàllu sax lañ xamut ah. sëñ bi li gën baax ci doomu aadama mooy ubbiku ubbiku mooy lépp te ñu bari dañoo tëj ñu bari dañoo tëj am na ci xale yu jigéen yoo xam ne am na ne fene rab donga leen tey xam nga li waral hmm. seen sol yu bari yi nga xam ne xeeti sayaatin yi ngelaw yi yëpp day dugg hmm. te loolu bu duggee mën na laa gaare sa lépp bu mën na ko te nit mën naa ñëw wax ak yow waaw ba koo fi na nga jàpp ne kii mooy sa jëkkër na de ñu koy jàmbat digee digee sëñ bi ba nga ne ba ne ba nga ne ba nga ne kii mooy doon sama jëkkër hmm. bu demee du ñëwaat wala mu dem ba jàpp bés mu esek koo waxal tey bu subaa mu bàyyi la loolu daal képp koo ci xamante ni bi mi ngi doon sa problème waaw nga toog ku ne salaamaaleykum dem contacté ma ma teg la ci yoon woo xam ne insha allahu taala bal 2024 bi balaa jeex yow moom sedd bi sax mën nga ciy dégg madam <laughs> man maa la ko wax man maa xam du am na ci loo xam ne mhm. dees na ko laal waaye am na ci loo xam ne dañ koy misaal ban yi rek boo wooyee danaa la teg ci yoon woo xam ne mhm. ay wax bu nit ñi di wax da ngay dem bu nit ñi di wax da ngay wax ak jëf waaw wax ak jëf da xam ne bokkunu bu nit ñi di wax yow da ngay jëf da ngay liggéey loolu mooy la ci nekk man nag damaa toll bis bu yàlla sàkk bu ma xëyee <laughs> ci li bu ma sëppee sama tànk ci li may dox mooy <laughs> aajo nga xam ne doomu aadama ñu koy am di ma ko dee samay ñaan suñu borom <laughs> muy faju ci laay xëy ci laay gont xam-xam rek tarkalla boole sama dara ay caaxaan du ma lekk lu ma léwut man lu wér du ma mooy yàlla du ma wax lu dëgg du ma wax lu ma xamut lii daal mooy li ci képp koo ci xamante bëgg nga mu tëlal lool ku ñëw wax dem boo ma woowee ma teg da ci yoon xam ne boo jaaree saa borom miy sottal dana ko saafara ci kàttanu yàlla insha allah te yaakaar naa résultat yi ma ci am ba ma ci defee émission ak moom dara dafa leer ci moom insha allah macha allah acca waa ji euh, cheikh bi lan mooy rab rab ci boppam mooy lan rab rab nag foofu danaa fi insisté ndax xam nga seex mhm. da cee bari ñoo xam ne dañ koy dañ koy wax waaw xamuñu ko moom rab waaw te man te nit nit mën naa jàpp dañ koo liggéey sax te liggéeyun ko ah. am na ci ñoo xam ne sax mën nañoo am seet goo xam ne da ngay yow ñu xool la nga am rab waaye engagement bi duñ ko jël ndax la noonu ndax dansé ci nekk <laughs> loolu faaw day am day laaj ak xam ndax xam nga li tax waaw loo tegee ci nit rek na foo ko war a teg lu wër nga wax te gono yu bari ñoom ñoom ñi ngi génn di woote nii mhm. ñi ci nekk di naxaateeg ñi ci ne te ci dëgg xam nañ li wax lu ko gën a dansé ci adduna bu loo teggee ci nit am na foo ko war a teg boo boo amut gàllaaj nag xamoo ni ngay protégé yoo waaw da ngay tegg di tegoo di tegoo waaw bu boobaa nag yow sa jëmm yaay ëpp gàllankoor mhm. ki ëpp gàllankoor ki nga doon faj ah, loolu moo la ci nekk mhm. rab dafa am nuñ koy seetee bu ko nit ki jàppee nga am sarax yu war a génne mhm. mu def ko yow mii liggéey waaw day am sarax yoo xam ne yow danga koy def ak loo xam ne da nga koy def ngir lii nga teggi danaa la mooy dana mooy sa njaboot moo tax ñu bari fi ne dañuy dem naan damay faju rab kooka dana la encaissé ah, ah, waaye day dégg ci boo bindee sóoratu junni boo defee nangam sangam dem bindu jox la loolu moom la waaw <laughs> jàpp nit du yomb mm-hmm. lépp loo gis nag am njàng la rab moom ci kàttanu yàlla bu ñu la consulté ba xam li la téye ñu ko mm-hmm. rab fa fa mu la duggee ak bis ba mu la duggee ba mu la arwee sax mën nañ la ko wax ci lu dul ay làmbatu wax la na ngay def saabaram saafara ko ci kàttanu yàlla maanaam te nit ñi mhm. eh, gone yi dañoo jóg te fi ne bëgg fiis te amuñu kaaraange <laughs> te ndaw nag bu bëgg yaa ngi dox di mos dara rek mhm. ci loolu nga war a njëkki ci fexe ba kaaraange ak ubbiku mhm. mooy lépp kaaraange nag moom maa ngi ciy liggéey ndomba goo xam ne béyu lañ koy ewee nga ne ci entreprise ñu lay xeex nga ne ci mbooloo bëgguñu la wala nga ne ci famille bëgguñu la wala oh. yéenewuñu la dara mm-hmm. giñ naa ci rasulillahi bu nekkee ci seen nga aw ko sëpp say tànk da del si ñibbi si jàmm ku ku ku jéem ku ci yow dara moom insha allah la woon la ma nga ci wàllu kaaraange moom maa la ci wax lu leer maa la koy wax tey li ma ciy liggéey du ma ko wax fii ci micro bi waaye ku ma ci woo maa ngi ci liggéey càngat goo xam ne <laughs> di ñaa ci alxuraan ay xomb lay àndal bu fekkoon ne da ngaa tëju à vie bu ma la ko defalee ne la sangul ba pare nga dem sànni ko géej boo demee lépp boo waaye boo ko dellusi wut moom danaa la tëjaat rab jërëjëf jërëjëf sëñ Modou jërëjëf waaye jërëjëf ci xam-xam bi acca euh, laata ñuy jeexal dugg ci actualité dañu ñëw ci wàllum biddiw nga xam ne loolu ah xam naa koo ci jëflanteel daal mu xam ne am na loo xam ci wàllum ñaan bi. waaw se xam nga loolu li tax ma la li tax nga insisté ci noonu. ilmu nujuum mhm. dafa xóot. dafa bari. Mhm. dafa bari ñu insisté ci. koo ne ci xoolal ma tab sama tabian. Ah. waaw mu naan la xool Modou Ndiaye mim 40. waaw Modou Ndiaye naari yu la léegi Modou Ndiaye yi ne ci de yi ne ci àdduna bi yëpp naari yu la. <laughs> bëri na de xam nga loolu xam nga loolu mhm. ne ci àdduna yëpp du naari cey li ma la waxoon ci njëkkantal njëkkantal xam-xam boobu ñuy sukkandiku waaw man mii wax ak yow nii jaar naa waaye xam naa ne wérut am na lu ko gën a te sëriñ si may dégg te xam dara xam nañ ne li ko gën am na ñiy sukkandiku foofu yëpp nag ñi ngi doomu aadama ñi ngi lor nit ñi fi ne mhm. bari ñoo xam ne ñi ñi fees del ay problème dem di mhm. lijjanti di faj ay problème di gën a am problème ñañ dem ñoo yokk problème ya mhm. ndax bu fekkee ne sa tabian doon sawara. waaw ñu ne la ndox ngay saraxe. incha allahu taala moom doo ma sa bërbëri giim rek ngay def. tarkalla man maa la ko wax. Mhm. te nag fi ne da ngay dégg ñu naan koo xam ne danaa la mhm. ndox la rawxaan ndox la rawxaan rawxaan du ndox du suuf du ngelaw. <laughs> moo tax ñakk xam ngi dañu nekk rawan du yooyu yëpp. lu wër waaw tabian. mooy doon ngelaw baa suuf baa ba ba sawara baa ndox. biddiw nag moom leneen la. Mhm. waaw ni mu amee tur yi noonu la noonu la demee. barkalla léegi bu ko defee bu ko bu ko defee borju ñëw. Mm-hmm. cey borju kawaakib. Mm-hmm. tabian. noonu noonu la ko yëfi di leer waaye boo dégg ñu naan da ko di koo xam ne toog naan yow sa rawaan ndox la sa rawaan ndox nga xam la <laughs> sa rawaan ndox sa rawaan waaw rawaan ak tabia comme yàlla ak yàlla bokkul hmm. ni ñuy seet rawaan ni raw an aan ak xuddaam niñ koy génnee. waaw bokkut ak ay ay tabbin ay ay ay yooyu bokkuñu. Ah. day ci wax ne day toog naan maa diw rawaanam ndox la ak nangam sangam. nañ bàyyi caaxaan yi waaw nañ bàyyi caaxaan yi te dem jàngi jàng moom du wees bu fekkee ne yaa ngi naxee mhm. di mos dara bu dee na ci naxee nga ne di mos dara demal laloo loola nga naxee demal nga uti ci lu leer bañ caafaatu sëñ bi ak naxe mënut a wéy de boo ñu nee bëreetit barke Serigne Saliou Mbacke. doo ci arrivé. doo ci arrivé maanaam ak mujj nga ci dut am. lu wér te ku ci nekk war li muy def war na cee xool digganteem ak suñu borom. ñëw rek toog jal say bagage naan naan sa tab sa rawxaan lii la rawxaan mhm. ndox. du sawara du mhm. suuf lii man maa ko wax ku am loo ci werante boo ma contacté ma wax loolu leer nañ il koo xam muy mhm. xam-xamu biddiw il mu falak fukki weeri ak ñaari ni muy tegaloo ci at mi waaw semaine yi bis yi bis bu ne am na biddiw bi ko moom bis ba nga juddu ba ruju ba taale xon mm-hmm. biddiw booba mm-hmm. loola boo loola boo ko xamee li mu doon sa ngay xam biddiw ba da ngay xam burju ba kawaakib ba biddiw ba xam kii li li mu war a def bu boobaa boo ko waree ñaanal doo doo doo sax làmbat dafa leer waaye sëñ bi ne fi naan ay sarawaxaat ndox laak di réeral nit ñi toog naan yi tabee bi yé ñeekoom ñeekoom loolu ay caaxaan la rek nan dem jàngi te bàyyi seen caaxaan yi sëñ bi mm. nañ bàyyi seen caaxaan yi te dem jàngi lii mooy lu leer sëñ bi bëgg a tedd waaw te nangu woo sonn moo fi bari nañ bàyyi tappale yi defi leneen lu noonu rek jërëjëf jërëjëf sëñ Modou njaay mu sëriñ Saliou jërëjëf ci xam-xam bi waaye jërëjëf ci leeral yu am solo yooyu acca dañuy ñëw ci làmb ji dox ci diggante Modou Lo ak kii di Boy Niang 2 li bëgg xam nag mooy kan mooy daan ak nan la koy daane seex combat Modou Lo Boy Niang mhm. fii ma taxaw di wax ak yow nii mhm. bu doon ngoonu tey tay tay waaw pare na ci lépp làmb ji nag ñu ci bari fi ne ñu ngi mm. ciy def nii di ci def ni ah, waaye waaw di ci jeexi jaaxa waaye Modou Lo moom fi ñu toll nii bu doon ngoona moo ci ma gis man li taxaw nii bu doon ngoona moom pare na lépp ci wàllu musique booy ñaan nag ah. solution na am ah. waaye ñi ko ñaanal bu ñu xamee dara bu ñu jàppee na jekku nañ Modou loo Modou Lo ay caaxaan jàpp ko lii man maa la wax sarax nag mën na lu ne yàlla it mën na lu ne mhm. waaye fii may wax ak yow nii nii tembe mhm. Modou Lo moo moome kanji kanji ñooy ñaanal sa waay de Modou Lo moom moome laa la te Modou Lo moom moome te ay gone ñaanaluñ ko man maa la ko wax Modou Lo ay kilifaa koy ñaanal booy ñaan nag. waaw mën naa am mille sens. waaw mais nu nu nu nu bàyyi xel yëf yi ndax Modou Lo mi jàpp na jekku nañ ko jékkuwun ko. Ah, man nag li nga xamante ni bi danaa la ko ci leeral mooy. waaw seex làmb bu desee ñaari fan. man danaa la ne diw mooy daan jël bu amul benn werante. Ah. te loolu ma ci gis amul lu ci soppiku. bu bu desee ñaari fan rek ñëwal ma ne la kii. combat kii moo ci daan. kon te combat bu ñëw nii laa koy bëgg waxee incha allahu taala. tarkal jërëjëf acca ñu yaatal ba léegi jàll ci beneen question damay ñëw ci lu bokk ci wàllu politique bi kan ka gis maanaam euh, mu doon ci li nga xam ne suñu borom wan la ko cinquième président ci 2024 bi. Cheikh élection yi ñu dëgmal. élection yi yàgg naa cee wax. waaw yàgg nañ cee wax man ak yow fii. Mhm. nee la Ousmane Sonko. waaw bu fekkee ne bàyyi nañ ko mu dem. bu ñu xëyee di wootee eh, bu ñu xëyee huit heures balaa midi mën nañoo tëj urne yi. waaw ah, loolu de mooy question. waaw ndax jël bi da gën a ñaaw. ndax bokkam ba léegi moom leeragul. waaw bokkam moom du leer. <laughs> bokkam waaw. wax naa ko fii émission waxati ko fi. Hmm. gisuma lu koy dindi maanaam li lay fàtt boo ko gisee da nga moytu ba du dugg sa bët. lu wér nga wax. te ñoom ñii ci kaw. waaw Ousmane Sonko arrasé wu leen tey arrasé wu leen ëllëg. voilà buñ buñ laale. Hmm. danañ laal beneen ba ba ba sërxal ko waaye Ousmane Sonko moom. waaw mën naa doon président Sénégal ëllëg. ëllëg waaye élection yi du ko doon. Ah. man maa la ko wax. ba tax na juróomeelu président bi kon. du waaw waaw loola nag moom. ñan la gën a loola nag moom yàlla dogal na man lu may wax damay leer bàyyiwuma ci xel waaye problème Ousmane Sonko man xam naa ci dara maa ngi koy topp. Ah. xam naa ne moom élection yii moom mënu ci doon président. Ah. waaye nag. Euh, élection yi jaxasoo daal la ko gis moom. tarkalla foofu laa ci ma ne damay bëgg man lu may wax rek. waaw bu ñu tegee argument mu leer. waaw ndax it loo xam ne dafay nekk. looy wax da nga koy xam waaye euh, Ousmane Sonko moom gisaguma ak bokkam ci élection yi bay doon président. ndax gars yi luñ luñ laale. ñu lalaal leneen. te te te kuñ ne deux mois des trois. du ma doon teg kii di Amadou Ba mi nga xam ne moom la Macky Sall tànn ak kii di Karim Wade mi nga xam ne ba léegi ñëwagut ñu ngi koy séentu duñ doon taal ñaar ñoon pour ñu jël réew mi kan nga ci gis. non Karim moom waxoon naa fii ci yow menn mbir. waaw programme woon na ñëw ngir bokk ci. Mhm. waa APR. Mhm. ma wax la fi lu leer nañ mhm. ñoom dem nañ Qatar ngir mhm. waxtaan ak moom saa ñëw doon seen mbër. mais waaw mais. am na ay bokk dañ ko cee génne waaye konoon ñoom seen palaa loolu la woon. Ah. Amadou Ba mii ah. sa su woon. man maa la wax lii amoon nañu déggoo ñoom. jóge dem APR. déggoo ma de. mu doon seen mbër ñoom. ñu boot ci kawam loolu. loolu wax naa la ko fii ci émission bi waxaat la ko fii. loolu demoon na ba am. mais dañ cee génnat. Ah. ndax it bu fekkee ni nit ñi dañuy daw di génn ngay daw di fa tafu ji nañ def nit ñi. na nit ñi def noonu noon lañ lay def moo tax nag ay mag a ko yar mhm. waaw xaj na nag bu fekkee ne dana ñëw boppam lay demal waaye dootu bootu ci kenn waaye nag la xam ne moo amoon waaw Macky Sall sax ci moom la waroon ci moom la waroon a boot loolu mooy lañ bëggoon bu sotti woon ah, mu di lan noonu Macky Sall ci moom la bëggoon a bootu lañ woon mm. bu kontoon Macky Sall sax ci moom lay bootu mais dañoo dem ba ci biir mu wëlbatiku tarkalla waaw loolu mooy li ci am man maa lu leer nañ gis nga élection yi am 25 février waaw élection yi nag loolu moom am ngeeg ñàkk am moom loolu xamaguma ci dara gisaguma ko waaye bu amee daal ah. gisuma Ousmane Sonko doon président daal élection yi ndax dina am wala doon bu amee gisuma Ousmane Sonko doon président lii daal laa lay wax moom gisuma moom bokk ci waaw waaye dana am ak dana am loolu moom ma ci dara waaye Ousmane Sonko mi daal xam naa ne moom élection yi moom du ci bokk jërëjëf acca ñu balal ci lan ngay tàggatoo di sant ñëpp rek mhm. di sant waa 221 people mhm. euh, seen liggéey di ko rafetlu waaw ndax xulil xaq walaw kaana mu ron yéen lu baax dong moo leen tax a jóg mhm. ñépp ngeen yemale tamit njaaxaanaay ngeen tëddee mhm. waaye nit bu fekkee da ngeen seq liggéey lu mën a xew rek da wax lu man nag sama liggéey ak yéen mhm. saa borom mi ngi koy rafetal te damay mu jëm kanam ndax nit ñu tege ci yoon ngeen mhm. du ngeen ànd ak kenn ci ay jaaxaan yàlla na leen yàlla